mbokk yi dal leen ak jàmm ñu dikkaat ak yéen ci publication bi Aby defoon fan yi ci page Facebook am te tiitaloon ñu bëree bëri ci sénégalais yi rawatina ñu bëri ci fansam yi fan yi ñu génn waykat bi di Aby di rakk ci Youssou Madjiguène Ndour dafa defoon ab publication bu doy waar ci page Facebook am ca boobule publication abindoor mu ngi ci publier benn photo bu mu sol yëre yu weex tàll kanam nga yërëm telu lool rakku Youssou Ndour ji daal di bind ca publication boobe désolé mes amis je vous aime tellement mais c'est mon dernier poste adieu bile phrase lañ mënoon a lire ci post bi nga xamante ni abindoor defoon na ko ci page facebook am boobule post nag la muy wund ca wolof mooy maa ngi jéggalu yéen sama fans sama xarit sama ay jegeñaale bëgg naa leen loolu waaye bii mooy mooy photo bu mujj bu may dugal ci snap kon bokk àjj ba beneen yoon na bataaxal bi nag ñu bëri ci internet yi rawatina ñu bëri ci presse bi daal di koy interpréter nu ne ñenn ñi jàppoon ni Aby Ndour dara da ko jot wala sax dafa gis ak faatoom ba tax muy tàggoo loolee waraloon ba ñu bëree bëri daal di wut ab numéro téléphone di ko woo ngir nemmeeku ko xam ci lan la nekk waaye nag ci gënoon a doy waar ba tiitaloon ñu bëri ci askan bi moo di téléphone bi dafa fayoon yoon ba tax kenn mënu ko woon a jot ci appel waaye nag jamono ji ñépp xam nañ lan moo waraloon mu def boobule poste bu ñu sukkandikoo ci waykat bi moom ci boppam ab balaak la bëggoon a def maanaam da doon kaf ak ay fansam yi ndax kat bis boobee dafa yamoo woon ak bisub anniversaire maanaam bis bi mu juddu loolee waraloon ba mu doon natt ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko sopp ak ñi ko jege ndax mu xam fan la toll ci ñoom waaye nag mu mel nii rakk Youssou Ndour bi di Aby Ndour am na lam bëggoon ndax xam na bu baax fan la toll ci xolu sénégalais yi rawatina ci fantam yi jamono ji ñuy wax ak yéen Aby mu ngi sant bu baax a baax xanaa ñu koy ñaanal joyeux anniversaire